ndeysaan ñaari xale yi nekk si biir bi nag mooy ki nga xamante ne nii mooy jaasi pël buy écrit sumbi jum ki nga xamante ne mooy Diène Kairé moo ko andi waaye kan lay dajal nag ki nga xam ne mooy Peleña bu Kër Massar mbooloo laa ilaha illallah ñaari xale yaan ci biir géew bi ki nga xamante ne mooy Pape Mbaye mi nga xam ne moo yor micro central bi moo leen présenté ba pare ñaari xale yaa ci biir géew bi jaasi pël bu écrit Soumbédioune ak ki nga xam si nii moom mooy Peleña bu Kër ma saar mbooloo mu mel ni que combat bu nar a neex la nag. waaw combat bu nar a neex la tubarkalla ñaari mbër yaa ngi si digg géew bi def seen i débat dépp fa seen i leewaatoo waaw. ñaari xale yi dañoo xaw a tolloo gabar yi. waaw ñaari xale yi dañoo xaw a tolloo doole waaw. que le meilleur gagne daal. laa ilaaha illallah sbtmedia point com mi ngi noonu 3W ngay def. def kom mooy seen site internet boobu xew si jamono waaye seen seen YouTube ngeen def SBT Media ngeen abonné seen seen seen YouTube laay laay la laa ñaari xale yaa ngi ci biir géew bi. waaw ñaari xale yaa ngi ci biir géew bi ku ne ngi def say débat def ku ne ngi wane sa bopp tubarkaale làmb ji daal tey du yomb du yomb. waaye grand combat bi grand combat bi combat la ci biir combat yi de laay laay la laa ndax ki nga xam si ne moom mooy. caatu ngéwél jógee Yoff yoof kenn desul waaye ki nga xam se ni mooy fils de Sallo ñëw ànd ak mbokkam baayam andi ko baayam def lu nekk ci làmb ñaari xaleel daal yoo xam ne daal ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk yaa ngi yoon. waaw tubarkalla nekk sa yoon boo gisee caatu ngewal waa lébu yëpp jug nañ yëngu nañ tey andi ko nga xam ne mooy caatu ngewal waaw waa ngewal yëpp ni ko yow la te dañ ko nee nañ koo yónni yàkkamte ko nee na ndam ni lu mu guddi guddi guddi ngewal la jëm kii ni ko lu mu guddi guddi dama ko yóbbu waa loo xam si moom tamit fils de waaw noonu nga xam ne waa Yoff noonu la ñu andee ki nga xam si ne moom mooy caatu ngéwal noonu la waa dakaar ñëpp jóg daal di boot si ki nga xam si ni moom mooy Zallo andi seen doom muy fils de Zallo fils de sallo nag nekk xale boo xam si ne am na benn xeetu bëre boo xam ne da koy bëre muy saaru fiir na ko caatu ngéwal bàyyi xel ee ñaara xale yi mu mel ne daal alaaji naar daal moom mi ngi noonu rek waaw ñaari mbëri ñu ngi ci biir géew bi mu mel ni que arbitre baa taxaw di wax ak ñoom arbitre bi xool na leen saan jaasi pël ak ki nga xam ni moom mooy peleña bu Kër Masaar mbooloo arbitre bi sifflé na ñaari xale yi ñu ngay lewaatoo ñaari xale yi ñu ngay lewaatoo bi gaaw na ñaari xale yi la moo nar am ñaari xale yi ñu ngay lewaatoo lewaatoo bu barabar macha allah ñaari xale yi dóor mu daanu la ndax mbot la ndax xatar bi la ndax wéyale la ndax nooju la ci kanam tuuti danañ ci xam dara alaaji naar jaasi pël bu écri sumbi jum ak ki nga xam si mooy peliñaa bu Kër Masaar mbooloo ñoo nekk si biir géew bi combat bi bari na de ay xale la ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp yàkkamti ay xale lañ ñi ngay jëm ay góosut gurdu guraaw ma a alaaji naar ñoom ñaar ku jum daanu ku ah. na jàpp na ah ña ndeysaan combat bi metti na laay lay la la Peleña Kër Massar mbooloo ak jaas yi pël écrit si mbicum moytu leen kaawoo ndax nooju la ndax wéy la ndax xatar bi ay lay aw mën na am ndax dóorante yi bari na jàpp na ko jël na ko mu rasu oh ndeysaan ma nga jëm ci saako ya ma nga jëm ci saako ya nga jàppante ci kaw alaaji naar ñu ngi kaw bal ko ci kaw ma ngay dóor suuf ma ngay dóor ci suuf ña ngay dóorante ci suuf fayu na waaw waaw dóor fayu ndax wër na cee am waaw waaw naar xale yi seen combat bi neex na lool combat bu neex la ndeysaan maa ngi nuyu waa es fa xet ko waa station tali bu mag waa Naas Diop ndeysaan ak ki nga xam ni moom mooy Boy Ndiaye ak ki nga xam si ni moom mooy Vieux hey alaaji naar ñaari xale yi ndeysaan combat bi metti na nag waaye nag neexul ci ñoom ndax doorante bi ëpp alaaji naar daal ñu ngi bëggee képp koo xam ne yaa ngi safoo sbt media point com ma leen di wax ne noonu la kon leen ngeen abonné seen seen youtube ba seen tous kolos notification dara du leen umpu laay laay alaaji naar ah, door na ko xale yi ñu ngi xeex ah ndeysaan ñu ngi jam kaaw mën naa am ndax wéyale la ndax fàqat la aw mën naa am ñu ngay dóorante waaye am na ngemb ca ca suuf ndeysaan wéyale jaasi pël ak ki xam ne mooy Pele ñaa bu Kër Massar mbooloo. bët na ko day ah, jël na ko. xale yi mën nañoo bëre waay. ñaari xale yi ndeysaan. day lay on day ku ca kaw. hey Alaaji Naar Alaaji Naar nag maa ngi nuyu nag sama xarit Alaaji Naar dafa mel ni kaaw am jël na ko jël na ko. jël na ko dafa mel ni kaaw am na. kaaw am na. ña ngay doxantu jëm ca boru saako ya ndeysaan hey alaaj naar mbër lu ñu fay jar na ko loo ko fay jar na ko mbër rawatina mbër mu ndaw hey oh, jël na ko ndeysaan xaj oho jaasi pël ak yeexas moom mooy peleñaa bu Kër Masaar mbooloo xoola supporter alaaji naar waa sumbu jul ñu ngi nay taxaw waa vert blanc et vert blanc ndeysaan di nuyu nag sunu papa alaaji Boy Kayre sama xel dem na ci Boy Kayre ndeysaan xel dem ci Kayre Senior Kayre Senior ndeysaan équipe sumbu jul na eh, eh mu ndaw moo gën a miti eh, lu leen fay jar na sama xel dem na ci Kayre 2 waaye ndeysaan ki nga xam si mooy jaasi pël ki nga xam ne moo ko ëndi tey mooy ki nga xam si ne nii mooy Diène Kaïré bëri fi combat bu rëy digganteem ak ki nga xam si moom mooy Quench bu Bargny ñoom ñaar ñu mat si niil alaaji naar combat bu rëy ngi woon noonu waa ji de. ndeysaan. ndeysaan ñaari xale yi ba tey dara amagut. ku nekk am na ngemb. ba tey dara amagut nekk am na ngemb. nee naa ko dóorante bari faaw calcul boo calculé da ngay juum daanu. jàppante ba tey. ndeysaan. SBT. SBT Média point com. na gaa yi abonné. ndeysaan. dara du la ëmb. seen émission seeti mbër incha allah mi ngi ñëwaat. dina ñëwaat. bu ko defee ñu seeti champion yi nekk si làmb waxtaan ñoom waxtaan ak. la dëgg la. maa ngi nuyu nag sama xarit ki nga xam ne si nii moom mooy Sam Production. ndeysaan nekk fële ca Caaroy di sama xarit di nit ku baax. ndeysaan tëgg na combat bu rëy. xam naa fan yii incha allah la 4 avril la incha allah ci ñëw ak yéen. mais xale yaa ngi door dem na. oh. oh. ndeysaan. mooy combat bu paas paas na loolu la waaw loolu la moom la. <laughs> mais booy mi ngi rokko si suuf rek. mi ngi koy rokko si la xaw ku garaaw la. ndeysaan ku ne am xale yi bëri nañ bëri bu metti mais nag làmb noonu la. làmb nee naa xam nga ne géwél mënut a ñàkk ci làmb. ah sunu grand Bécaye daan na ko wax. alaaji a ñàkk ci bu làmb Moussa toll fi daan géwél yi la ngay dégg. ndeysaan alaaji naar ñaari xale yi dina am ku ci door sama ramu daan boobu mooy tuddee. dëgg la ndax ndax dañu fa dañu favoriser xeex bi nag. alaaj naa répliquer yii. ma ne ko dañu favoriser xeex bi nag waaye mënoon nañoo jëm a def technique tuuti ndax nag loolu mooy mooy mooy jeexal làmb. ndeysaan cee ñaari xale yi. lamb fa la waaye ku daan rus alaaji naar lamb fa la waaye ku daan rus wallaay dëgg la alaaji maas lamb fa la waaye ku daan rus wax nga dëgg waaye xale yi kenn ku ci nekk instant bi ñu ngi ñu ngi def tactique nag ndax seen premier souffle dem na moo tax ñuy calculer bëre bi kenn ku ci nekk am na ngemb waaye ah, Diassy Peulh mi ngi dóor ci suuf ndeysaan combat bi metti na nag. alaaji naa Diassy Peulh war naa ñëw de ak maa ragal Diassy Peulh alaaji naar ak maa ragal alaaji naar jaasi pël war naa ñëw de waaye peleña moom hey maa bañ peleña peleña bon seet peleña baaxul fenn man ne alaaji naar xale yi seen turu lamb koy jëlee rek waaw waaw waaw <laughs> ay jaasi pël ay peleña sa xam nga am na mbër bu tudd paxu néew ah! naar foog du fa bëreeg moom ah, <laughs> laa ilaaha illallaah arbitre bi àtte ñaari mbëri arbitre bi ñaari mbëri alaaji naar ah arbitre bi àtte na dox na dox na avertissement mais moo nag ñaari mbër yu bëre ba génn saako ya avertissement waru ca alaaji naar arbitre bi sifflé waat na waaw waaw ñaari xale yi ñu ngi waaw dañ ne ñaar ñu tolloo doole faaw seen làmb met dañoo tolloo doole. wax nga dëgg nday dañoo tolloo doole nag moo tax xam naa ni xeexu mbedd rek lañ koy xeex sànq ba léegi yaa ngi gis xeex ba ca kaw lañ koy xeex Alaaji Maas. waaw boo xoolee ki nga xam se ne nii gars yi ñoom ñoom ñaar ñëpp dañoo am ginnaaw moo tax ay mbëri ginnaaw lan boo amee ginnaaw nag sa combat doo ko jël asaaloo ko. kenn bëggu daanu nag. waaye foo jaar kenn yóbbu ndam li. mënut a ñàkk dëgg la. ndeysaan maa ngi nuyu nag ki nga xam si mooy Bécaye 2 sama xarit xaarim Bécaye. ndeysaan maa ngi nuyu Lamine Samba numéro 2 sama rakk yooyu sama xarit yooyu ndeysaan du nuyu. media point com bi xam ne ndeysaan ñaari xale ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngay bëre ca kaw oh ndeysaan oh xeexu mbedd lañuy xeex fi mu nii nag dañoo sonn fi nii dañoo sonn oh dem na dem na. am na ku ci def loo xam ne gëmoo ko de ñoom ñaar am na koo xam ne xeex bi ñoru ko bëre bi la bëre bee ko ñor. waaye El Hadj Mass maa ngi nuyu baax sama xarit muy Thierry Ngoné waaye maa ngi nuyu Aziz Bisili Géel Bisili Cé Aziz Jinne maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax ah! door na ko de ndeysaan xeex na ko xeexu Modou Lo nag jam génn. laay laay la laa muy combat bu rëy dox ci diggante ki xam si nii moom mooy le champion le roi des arènes Modou xarañ Lo waaye nag war a daje kan le fils de Falaye sëll bu ndaw doomu Pikine ñu ne nag attention sëll bi léegi yëkk la muy bés bu rëy boo xam si nii mbokk Sénégal ñëpp a koy xaar àddina a koy xaar le promoteur de la continent tegu ko muy ko Nicolaï Enco production di ko ñaanal yàlla suñu borom jëlee ko fa nekk laa ma ngi noonu ñaari xale yi. amin waay li nga wax léegi. ci ndeysaan. arbitre attewaat na. ma ngay naan ndox. ah. ma ne ko round d'observation bi nag. dafa miti. maa ngi daan bu ñaan santam néeg bu ñu saan santam néeg dama daan gis ñu gas si digg néeg bi sotti ci ndox. alaaji naar kenn ku nekk ñëw naan ci as si naan ndeysaan. ndeysaan laa ma lépp cosaan la. lépp la. sëlmu. loo ngi noon di romb de. alaaji naar loolu dana ci ñëw ci kanam ñaari mbëri arbitre bi sifflé waat na arbitre bi sifflé waat na jaasi dafa mel ne dañoo baral combat bi nag. waaw ndax xam nga ñaari xale yi ñoom ñaar dañoo yàkkam day ñibbi ndeysaan laamu daa metti ki nga xam si ni mooy jaasi pël bu écrit si mbijum ki nga xam mooy jën kayre moo ko andi waaye nag ka lay dajal ki nga xam na si ni mooy peleña bu écrit Kër Massar mbooloo ñaari xale yi ña ngay ña ngay ña ngay demee naar ñaari xale yi ragal naa bu njàppante waate lamb ji jeex alaaji naar bu nu waate lamb jeex ragal naa bu njàppante waate lamb ji bu njàppante waate lamb jeex laa ilaaha illallaah door na ko de kuubu dal laay lay la laa jaasi pël door na dooraat na dooraat na jaasi pël dafa garaaw nag laay ay jam yu la yor ah ba maadu kaw du mbaa kaw du am mbaa kaw oh, bi métti na nag laay lay la alaaji naar ñaari xale yi ñaari xale yi dañoo sonn ndax avertissement ilallah hey xoola jaasi pël li mu andi ci mbooloo moo tax mbër entraînel rek alaaji naar xoola jaasi pël li mu andi ci mbooloo waa ardo ardo ardo maa ngi nuyu nag ki nga xam se ne mooy buur géwal nekk sama wet borom RTS 1. borom émission géew bi. ndeysaan ndeysaan di nit ku baax di nit ku yàlla baaxal. ak a baax. alaaj naa daal géwal mënut a ñàkk ci làmb mënut a ñàkk ci réew. ndeysaan. alaaj naa lu ma dee doon géwal. ndeysaan. loolu laa ba lijjanti lan moo ma tee doon géwal. buur géwal maa ngi koy nuyu baax a baax a baax. su ma la déggee daal mooy daa baax ba mel ni baaxug lem bu ñu baax ci baax ko waset muy baax baax jubali baaxeen. ma ne ndeysaan maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di leen wax ni làmb ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla seen jàmm yàgg. dëgg la Bourgueul. la ma dee nekk géwal loolu laaj. man kay fi mu doon nga géwal ba tey ndax ñu mën a gisee nii. laa ilaaha illallaah. <laughs> ndeysaan làmb neex làmb neex. ñu ne ko làmb neex. ni ko ñaari bëri. xeex arbitre sifflé waat na jaasi pël bu écri sumba jum ak peleña ndeysaan Kër Massar mbooloo ndeysaan dafa mel ni foofu Boy Seye fa la ne le grand champion ñu ngi koy nuyu baax baax am fi ay ndam yu am solo nag ndax alaaji naar bul fàtte ne dafa daan ki xam ne si nii mooy la professeur de Lansar muy Tidiane Faye jógee fa daan ki nga xam ne mooy Siteu daan ki nga xam ne mooy Diène Kairé hey ñu ngi koy nuyu de passage di nuyu champion yi nekk laamu làmb yëpp ndeysaan di nuyu Boy Niang bu écrit Balla Gaye di sama xarit ndeysaan di nuyu Youssouf Balla Gaye di nuyu Samba Lawbe di nuyu mbër yëpp rek ñaari xale yi ñu ngay lewaatoo xale yaa ngay lewaatoo waaye maa ngi nuyu baax monsieur Lamine Gueye bu république des maa ngi koy nuyu baax a baax di nuyu ay collaborateur am ku ci mel ne Abdou Diop di ko ziar di nuyu Baara taaliba Ñaseen booba laay laay la la eh, eh. alaaji Maas alaaji Naar Jaasi pël mii dara la de jaasi ji ñaw de. jaasi ji ñaw na de naar dafa mel ni tey nag peleñaa moo am peleñaa moom. tey peleñaa moo am peleñaa tey. tey peleñaa yaa am peleñaa. dellu na ardo dellu ardo. alaaji naar peleñaa am na peleñaa. peleñaa moo am peleñaa. <laughs> laay laay la la nday nday xanaa mosoo gis de. lii kay mosuma kaa gis tey moom peleñaa lan andil peleñaa. laay laa xëy la jàppal tey andil na Pelleña Pelleña Pelleña yaa am Pelleña yaa waroon andil Pelleña jaasi pël waaye farta la andil Pelleña. Pelleña dem na Ardo. Alaaji Narto baa ngi signalé rouge. kii ba jàmm la. seet seet seet seet Alaaji naa daal maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi nekk ci làmb. ko doxal. dëgg la. muy promoteur. muy muy ñi nga xam si ni mooy amateur yi. di nuyu nag la président des amateurs Doudou Ndiaye Diécko Alaaji Naar. ndeysaan ñaari xale yi mel na ne ñëwaat nañ ci digg géew bi. ndeysaan. arbitre baa ngi doog siflewaat arbitre bi sifle na. ndeysaan maa ngi nuyu baax garab Badou Gueye. waaw noonu laay nuyoo sama papa sama xarit Aziz Masata Ndiaye Aziz Baye Aale Ndiaye du nuyu Baye Ndiaye Babacar Ndiak Masata maa ngi nuyu ñoom ñëpp. jërëjëf Ndeye. lamb jaa noonu waaye ndey daa mel ndey de ndey bàyyil dóor ndey foo xamee asi bana asi sama mag ay combat ba jeex na jaasi pël jaasi pël dafa dina ko jaasi pël laa ilaaha illallaa noo bëree ak moom ak noo gis si combat. gariñ gi dafa ñëw si signature bi commencé yaru yarlu mu dem ba si mujjanteel bi mu andi si reewande man nag boo andee reewande maa daaka xeex ëpp la mbooloo lépp loo laaj rek maa la ko ëppale. waaw gis man moom dama am dara dul fay sama mag bi yooyu na ma xaaj bu bëree bëri gars yi jàpp si moo tax ñii nii ñëw tey ñii aw seen fay waa Morlan ak waa Mbour kii moom aw ma fayam Ahmed Mela kii bu may bapat ba léegi mu ngi sama ngay sama mbokk man mbéyeen laa dëkk. ah waaw yow. waaw mais dogal ngay ah, la kon ñoom. ñaanal ndam ak tawfeex. amiin waay boo demee ah, gaan xam nga rek waa ji moom gaan ma loolu dafa yaakaar ne moom a dàq xeex man na ko yow bu dee xeex maa la ko maa la ko dàq man damay xeex man damay bañ a génnee xeex bi fii sax ba yeneen a jël moo tax ma tempee ko nii rek gaay yi mun a am dara yéen daal damay na ñaan rek ngeen am télé bu mag a mag a mag. amiin ah. lan la seet. incha allah ñëwoon maa jóge mbéy mi. defal loolu nag boo defee loolu rek mu neex.